ba Modou Fall mi nga xam ne mooy directeur de l'emploi moom moo ko signé ak kuréel gii di MEDES MEDES di kuréel gi nga xam ne moo ëmb entreprise Sénégal ki nga xam ne moo leen représenté woon ni ki démb sa signature ga mooy président ba ñu jom mi jiite kuréel googee di MEDES MEDES di organisation patronale boo xam ne ay entreprise yu bare bare ñoo ci nekk ba tey ci journal bi nee na MEDES ku ko xam-xam ko ci lu jëm ci wàllum insérer ay ndaw forum du premier emploi bi nga xam ne ba ñu ko taxawalee ak léegi toll na si ñaar fukki at ak benn bi ñu xoolee base toll ci téeméeri junni cay CV yoo xam ne fekk nañ ko fa yéene kaay gi nee na lu jëm ci wàllum lijjanti xëyum ndaw ñi ci réew kenn mënu koo wax tuddoo ci MEDES yéene kaay gi di l'Observateur ak Vox Populi ak Enquête ak La Tribune xëy duñu xibaar naan ñu tey ji la juróom-ñetti fan ci weeru mars muy journée internationale des droits de la femme bis rëy borom lay tolloo la yéene kaay gi di réew mi ko di cee nee maa la ko wax en tout jigéen ñi foo dem fekk leen fa ci ci lu jëm ci wàllu mbay mi boo demee danga fa fekk jigéen ñi ci entreprise yi boo demee da nga fa fekk jigéen yi ci administration bi boo fa demee da nga fekk jigéen ñi ci takk der yi ci takk der yi boo fa demee di nga fa fekk ñi nga xam ne ñooy jigéen yi ci parti politique yi boo fa demee di nga fa fekk ñi nga xam na ñooy jigéen ñi ci association yi jigéen ñi ñoo nga fa société civile bi jigéen ñi ñoo nga fa journal bi xëy dañu xibaar naan ñu nag bu loolu lépp passé ci biir kër yi tamit jigéen ñi ñoo nga fa ndax ñoo uuf gi jigéen ñi ñooy jabar jigéen ñi ñooy yaay journal bi di réew mi quotidien ci xalim ak Assane Sambo nee ñu waxante dëgg maanaam réew mi moom kenn mënu koo wax te tuddoo si jigéen ñi kenn mënu leen a wuutu ci fenn waaye nag jafe-jafe yi nga xam ne jigéen ñi ñoo ngi koy dund ma ngi mel ni tulleeg male ndax lu jëm ci wàllum siif siif jigéen ba léegi ma ngi am ci réew mi ak lu jëm ci firnaal ñi nga xam ne ñuy jigéen ñi loole tamit nemmeeku nañ ko fi waaye tamit li am ba des muy jigéen ñi nag war nañoo wax ak ñoom ndax nag yàq gaspiller maanaam mën nañu ko lool lool lool rawatina nag lu jëm ci seen xew yi kaay gi di wal fajëre ñu koy fekk fa Fatou Bintou Diallo mi nga xam ne ab sociologue la nee na nag jigéen ñi léegi daal maanaam nag nag divorcé wuñ pour divorcé rek maanaam ngir am lu leen naqari léegi jigéen ñu bare bare bare bari dañuy tas seen sëy yi ngir nag changé jëkkër maanaam jigéen ñi dañuy changé jëkkër léegi yéen kaay gi di enquête xëy dañu xibaar naan ñu en tout cas daal jigéen ñi nag ay jàmbaar lañu am na sax ay jigéen ñoo xam ne léegi si njaayum këriñ yi sax maanaam jigéen ñaa nga fa na jigéen ñoo xam ne mère këriñ lañ leen di woowee yéen kaay gi di vox populi xëy dañu xibaar naan ñu bu leen fàtte jaaykatu caaf yi jaaykatu caaf yi jigéen ñi tamit bari nañ fa loola yéen kaay gi de la soleil nee na en tout cas li am ba di sale jigéen ñi nag ci Sénégal Sénégal seen succès seen succès yokku na loola waaye jigéen ñi nga xam ne ñooy def mécanicien ñooñee tamit war nañ leen a jaajëfal waaye bëri na ay jigéen ingénieur bëri na ay jigéen entrepreneur yéen kaay gii de l'info ñu koy fekk fa Aminata Touré nee na li nga xam ne mooy ak ak yelleefu jigéen ñi dañoo war a accélérer la cadence yéen kaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy sages-femmes yi ñoom nag jamono ji ñoo ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne jafe-jafe yu doy waar a la yéen kaay gii de l'Observateur nee fan ci weeru mars bisub muy jigéen ñi en tout cas daal jigéen ñi nag ñoo ngi marché nag vers le sommet jigéen ñi ñoo ngi ci xoliko ndax seen statut ak rôle bi nga xam ne moom la ñuy joué ci biir société bi loole nag ràññeeku na lool maanaam avancement jigéen ñi moom am na ci réew mi yéen kaay gii de Les waa nee na moom parité bi moom fan la toll ba ñu ko foteeg léegi toll na ci fukki at yéen kaay gii de Le Quotidien nee na parité moom bul ko wax ndax fii ci Sénégal ci lu jëm ci wàllum politique kenn respecté wul parité bi yéen kaay gii di Vox Populi bàyyi mbir moome nag wax nga xam ne ni ki démb ci Ndakaaru dafa tàkk ba jeex yéen kaay gi nee na ab doom la def source a na ko ay millions ngi millions ngi millions ngi millions a maanaam moo fa tàkk yéen a kaay gii de la Tribune nee na dund gi nga xam ne moo am ci réew mi doy na waar te ba léegi état bu Sénégal mënu koo lijjantee vingt-quatre heures bu ñu waxantee dëgg mooy Macky Sall ci boppam dafa coincé yéen a kaay gii de Libération xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko njiitul Pastef benn a ginnaaw bi ñu ko defee contrôle judiciaire ay avocat am dañoo demoon nag ci parquet bi procureur ngir nag sàkku nag ñu daal di teggi nag contrôle judiciaire bi nga xam ne moom la ñu ko teg waaye nag parquet dafa lànk ba tëdd sanaaj waa